Alioune Gérard Koita maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ndeye. Alioune Gérard Koita nga bokk ci euh, secrétariat exécutif bu FRAPP France Dégage laaj bu njëkk ci 11 octobre bile ngeen nekkoon ci ministère euh, du travail lan moo ko waraloon. Euh, li ko waraloon tey ñun waa FRAPP ànd ci ay kuréel liggéeykat mel liggéeykatu Bress Doré liggéey ex liggéeykatu Biscuiterie Werté liggéeykatu EMAP industrie ak liggéeykatu Shamta ñu ñoo defoon benn délégation pour dem ci ministère du travail déposer fa benn lettre lettre bi nag occasion la itamit pour fàttali euh, onze octobre bi nga xamante ne moom moo xewoon euh, euh, onze octobre mille neuf cent quarante sept bi nga xamante ne suñuy maam ñoo ngi doon xeex maanaam jour bii la ñu commencé woon xeex ngir maanaam tinki wala jafe-jafe bopp yi nga xamante ne da ko doon dund moo ci seeni i béréb liggéeykaay donc tey maanaam moom nañu ñoom ca jamono boobu noonu benn grève nga xamante ne daanaka diir bi mun nañu wax cent soixante jours la woon ci réseau euh, ferré bi nga xamante ne moom moo nekkoon entre Dakar ak ñame euh, léegi nag jàngat biñ ci mën a def mooy que en 1947 boobu noonu suñu mag yooyu dafa amoon ay revendication maanaam li ñu doon ñaxtu bokkoon na ci mbirum euh, seeni salaire maanaam yokkum ci bi payoor bi mais aussi ñu xool ñoom naka lañ leen doon intégré euh, ci liggéeykat entre maanaam ñoom africain yooyu ak européens yi mm-hmm. leneen aussi nag ñu xool ñoom naka lañ leen mën a intégré ñoom auxiliaires yi ci cadre statutaire yooyu noonu ñun nag bi ñu defee jàngat mooy que 1947 ak 2022 mu mel ni revendication yi ñu doon xeex maanaam tey daal la gën a nekk actualité parce que Sénégal rek ngay gis ngay gis liggéeykat ñoo ngi koy daal di fay diggante trois cent cinquante ba trois cent soixante quinze francs CFA mooy heure. Mhm. wala encore da ngay gis parfois yenn entreprise yu mag yi dañuy daal di lakkatu ci ginnaaw yu lu ñuy woowee entreprise intérim pour continuer toujours di noot liggéeykat yi wala non non da ngay gis parfois. ni ñuy daal di ci kiinam concours yi daanaka concours bu dee dafa bokk ak président Macky dañ lay daal di jël bu dee bokkoo ak moom duñ la jël moo tax nag ñun nag FRAPP yooyu yëpp ñu ne baax na journée tey bi mooy ñu kii ko màggal ko mais aussi occasion la pour dem ci ministère déposer waale euh, revendication yi nga xamante ne liggéeykat dañ koy daal di dund ñoom tamit Euh, kon tey jii Alioune Gérard yéen lan ngeen di euh, reprocher euh, le ministre du travail wala le ministère du travail fii ci Sénégal. ñun lu ñuy wax dafa mel ni Sénégal daal amul ministre du travail parce que chaque jour yaa ngi dégg liggéeykat diw dàq nañ ko liggéeykat diw def nañ ko lii liggéeykat diw mais doo mos dégg maanaam ministre du travail di ci génn di ci àddu la preuve. ñoo ngi jaale suñu mbokku liggéeykat yi nga xamante ñoom ñoo fi génn àdduna ci explosion kii bi usine bi fale ca Diourbel mais gis ngeen même un simple poste njiitu réew mi il n'est même pas capable bind benn poste maanaam mastawu ñi nga xamante ne mooy fan yi nga xamante ñoom ñoo ñàkk seeni bakkan moo tey ñun dafa bokk ci ay exigences yi nga xamante ne dañ ko teg ci lettre bi mooy foog ñu xoolaat naka la ñuy respecté maanaam barème salaire yi parce que du dëgg du yoon ñuy fay par heure trois cent cinquante trois cent soixante quinze francs CFA mais aussi ñu xool évolution bi aussi salaire yi nit mënul liggéey ci entreprise diir bu yàgg chaque ñoo lay fay benn salaire bi nga xamante ne puusoo paasoo wala non non non non il faudrait que nag mbirum ñi nga xamante ne recrutement kumba am ndey kumba amul ndey loolu dafa war a arrêté tey xeex bi dinañu xool tamit naka lañ koy yóbbee fële ca assemblée parce que copie travail bi nga xamante ne bi ñu tegal fii ci Sénégal maanaam copie collé la bu réewum France moo tey loolu boobu conformul maanaam ak réalité yi nga xamante ne Sénégal loolu lay dund moo tay yenn kii ni euh, chef kii ni entreprise yi dañuy daal di profité ci code travail boobu noonu pour continuer toujours ci note li nga xamante ne moom mooy daal liggéeykat yooyu noonu ne moo tey yooyu yëpp bokk na ci ay revendications yi nga xamante nañ ko foofu. Euh, voilà Aline Gérard euh, Koita ñu laaj la ci beneen problème boo xam ne temps yëpp euh, yéen a ngi ci wax di problème bi am fële ci ambassade bu France fii ci Sénégal déjà lan moo xew ak ci problème yi am ci demande de visa yi passeport yi ñuy tëye ainsi de suite lan ngeen di dénoncer. lu ñuy dénoncé mooy ambassade France fii ci Sénégal ñoom dañuy daal di arnaqué plus de trente personnes par an loolu d'abord muy benn ñaareel bi ambassade France mais day day kii nii maanaam ambassade France day sàcc africain mais bu ci yemoon sax mooy mu ne mais ambassade France toujours ñoom dañuy daal di passeport africain yi denc ko ci seeni tiroir parfois ñu bàyyi ko ay mois ak ay mois fàtte ko foofu mais ah ambassade France ñoom toujours lu ñuy daal di def mooy ci mbirum visa yi dañuy daal di def business léegi business boobu noonu xaalis boobu la jëlee parfois di ko financer ci yenn projet mais c' est très normal ndax bu ñu tàccee kay mooy ba doyal c' est très normal parfois ñuy jël xaalis boobu tuuti mu mu xaw a mel ni comme genre bon tey seen mbir yëpp njur jaaj yëpp biñ koy def en complicité ak état du Sénégal moo taxit nag ñun waa FRAPP euh, ñu ñuy wax ambassade France maanaam sàcc bi dafa doy. Hmm. bokk na ci revendication yu maanaam yu ñu teg mooy que un nit ki kay boo ko visa mais dal na ko passeport a mais mënoo ko bañal visa ba pare jël passeport bi kidnappé ko fa bi aussi la moindre des choses mais nañu delloo ci ne xaalis yi nga xamante ne amuñu visa ndax ambassade France ñu ñuy sàcce dafa flagrant ndax fii ci Dakar ban cag-cag ngay mun a fay dix mille francs wala onze mille francs pour dem jëli benn papier mais loolu amul fenn wala ban intérêt ngay envoyé nit mu lay dikkee sept cent francs CFA mais yooyu yëpp ay xeetu sàcc la mais moo tax loolu tamit dinañ ko daal di wax leneen yi aussi puis condition maanaam mooy yu ñuy posé mooy il faudrait que mu am transparence mooy ci mbir mi transparence mooy dafa am ay nit yi nga xamante ne ambassade France daf leen daal di def liste rouge mais leen ko wax maanaam ñooñu chaque année dañu daal di dem continuer di déposer ambassade France di lekk seen xaalis te ñoom xam nañ bu baax a baax kii kat duñ ko jox visa mais ñooñu lan lañ ko wax leneen yi aussi faw ñu réduire diir bi nga xamante ne maanaam loolu mooy regroupement familial regroupement familial mooy ñi nga xamante dañoo am ay ay ay famille ñi nga xamante ne ñoo ngi par exemple France dañoo waroon dem foofu noonu dem fekk seen i njaboot mais ambassade France day daal jël seen i visa aussi di ko daal di ci nag wala mooy seen i passeport leneen li nag mooy fi ñuy daanalee mooy état du Sénégal foog mu am fulak fayda fulak fayda mooy bépp réew bi nga xamante ne dafay daal di laajte Sénégal ay visa pour ñoom ñu mën a dugg mooy seen réew état du Sénégal moom tamit noonu la waree am fulak fayda laaj réew yooyu noonu bu dugg fii ci Sénégal nañu am ci visa wax ji loolu kese la fi may daana ne moo ci mbir mi mhm. mooy ko FRAPP déposé na lettre depuis vendredi bi passé waaw mooy que jeudi incha allah ñun dinañ daal di def euh, site maanaam taxu ci buntu ambassade ngir euh, naxarlu sàcc bi nga xamante ne ambassade France dinañ koy daal di sàcc africain yi la donc ñoo ngi ciy woo ñëpp alxames bi incha allah à partir de dix Euh, Alioune Gérard kon jàpp nga ni réciprocité des visas maanaam euh, bépp réew boo xam ni sénégalais bi mi ngi fay dem ñu laaj ko visa réew boobule buy dugg Sénégal ñu laaj ko tamit visa est-ce que jàpp nga ni euh, lu ni mel solution la par rapport ak dund gu métti gi nga xam ni sénégalais ñi ngi koy dund ci ambassade bu France. mais loolu moo tax sànq la. maanaam ful la moom moo jaay Dakar. ndax bu fekkente ne ambassade France ñoom ñoo ñu jël sénégalais yi wala africain yi di leen di sàcc di leen facturer ay ay ay ay onze mille francs course ay sms sept cent ak ñoom seen ñun état du Sénégal noonu la ñu war a am fulla fayda ñu ne yow mii français bi sooy dugg Sénégal yow tamit dangay ngay am visa loolu kese la. c'est simple daal loolu la. mais c'est simple parce que daal. Mm-hmm. ñoom lu ñuy def. Sénégal. waaw am na yenn réew Afrique yi nga xamante ne duñ ko def par exemple Algérie soo demandé visa wala ak yooyu noonu. Mhm. bu dee amoo dañ delloo mooy saxaar waa léegi lan mooy ndeyu tey ñun ñuy nangu toujours maanaam euh, rongooñu sénégalais yi di siim cere français yi mais loolu du dëgg maanaam loolu nag mooy du dëgg du yoon moo tey nag ñun faw ñu am flag fayda du ñu ñaaw nag mooy ba pare ñàkk fayda ndax France warul mun a continuer chaque jour di ñu lekk di arnaquer ay nit trente deux mille personnes chaque jour presque chaque année ñoo ngi demander visa te ñii yëpp duñ leen daal di delloo soo amulee cent maanaam frais de dossier rek da ngay daal di déposer mille cinq cent euros léegi yow mille cinq cent euros loolu soo ko naree def multiplier ko mais loolu ay milliards moo tey ambassade France xaalis boobu noonu la ñuy jëlee seen i yenn kii fii nii ci si mel ni comme ay seen i école française maanaam a français yii nii mhm. ak ak ak yii nii ñoom seen moo tax ñu ne nag pour la moom moo jaay Dakar bu fekkee ne France dañuy daal di demander ay visa réewu Sénégal yi ak ñoom seen ñun tamit suñu réew noonu la ñu war a am pour la citoyen français buy dugg fii ñu demander ko visa ñun nag suñu position ci mbir bi yàgg nañ ko wax frappe rek nañ la naan yenn yéen a fi waxoon France dégage damay ak peuple français bi. Hmm. amuñu benn problème ak ñoom mais nag mbir mi day am mooy kii ni mooy fu muy toll ah ki nekk da nga war a jël sa responsabilité jël suñu responsabilité mooy ñun du ñu d' accord ambassade France di continuer di ay ay ci mooy ay africain Dernière question Alioune Gérard Koïta euh, analyse booy def euh, wala FRAPP euh, lan mooy position par rapport ak euh, projet de loi bi nga xam ne Aminata Touré def ko bëgg a yóbbu ci assemblée nationale euh, nee na nag ci loi boobule képp koo xam ni ci famille wu président nga wala nga jege président waroo bokk ci ñiy gérer réew mi waruñ la dugal ci gestion bi lu ngeen si xalaat yéen waa FRAPP est-ce que ànd ngeen ak Aminata Touré ci idée boobule waaw wala déet bon laaj bi du ndax ànd nañu ak Aminata waaw wala déet. mais li ma ci mën a wax rek ñun FRAPP waxuguñ ci d' accord mais par rapport à bu doon position de principe loolu FRAPP yàgg na ko démontrer mooy que dafa am séddale bu mais président Macky Sall dafa am séddale mooy bu maanaam bii Macky bii Timbo bii Amadou bii Marème loolu yàgg nañ ko woo ndax même ci tàccum suuf bi. gis ngeen président Macky Sall lu mu doon daal di def moom président Macky Sall moom moo doon wax maanaam moom daanaka moom léegi moom mooy terroriser euh, li nga xamante ne moom mooy wax waxee ndax moom moo fi newoon du ma daal di euh, mooy sama famille te gis ngeen bu mu toogee ba léegi <laughs> daanaka yëpp maatee la donc li nga xamante ne soxna soosale li mu daal di def comme projet ñun FRAPP yàgg nañ ko démontrer et que sénégalais yëpp aussi gis nañ ko léegi nag lu ma ci mën a wax mooy. Mm-hmm. fan yii di ñëw xëy na frapp dina daal di génn par rapport ak position boobu mais en principe présent Macky sax lu muy def nii loolu moom dafa ne fàng seddale boobu moom bii Macky bii Amadou bii Marème Faye Sall ak ñoom seen boobu dafa leer nañ mm-hmm. léegi nag bu amee nag beneen sénégalais bi nga xamante ne. Mm-hmm. dafay daal di benn projet de loi ngir xeex lool lool ñun lu ñu mën rek xëy na encouragé ko. mais ñun nekkul tey jii nii la ñu commencé démontrer que président Macky Sall tëddali boobu moom lay def ndax ñun lu ñu xamoon nag tëddali bukki mais saa waay moom dafa am séddale Macky Sall séddale Macky Sall bi nag boobu ñun ñëpp gis nañ ko fi. Alioune Gérard euh, Koita Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal. merci beaucoup. voilà Alioune Gérard Koita may fàttali ni euh, membre nga ci secrétariat exécutif bu FRAPP France Dégage. merci beaucoup.